muy tali bu am solo boo xamee ne nii dafa traversé vraiment diggu commune bu Taïba njaay de long en large donc euh, boo xoolee tool yi ñoom ñoo ko wër mais dafa jaar ci dëkk yu am solo fu mel ni Baal Diop euh, Taïba Sanc après ñëw jeex dëkk si route Mboro Tivaouane euh, ci Taïba Ndiaye donc muy yoon boo xamee ne nii bu am solo la parce que bu ay gàmm amee ak màggal yoon yi xam ni dafay jaar ay Cees yooyu dafay xat ñu bari fii la ñuy jaar si jaar biir tey ba Ndiaye pour dem donc muy yoon boo xamee ne nii bu am solo la nekk une vieille doléance euh, occasion la nag ñu sant euh, le président de la république le président Macky Sall ndax bi ñu recevoir ci li ma ko jàmbat yoon bi ci la bokk ak euh, leneen lu mel ni ndox mi nga xam ne xaw na manqué ci commune bi waaye di sant le ministre des infrastructures Mansour Faye ndax bi ma ko fàttalee ak bi entreprise bi di ñëw sorewul occasion la également ci impact yi ñu sant euh, la société Sino Hydro bi nga xamee ne nii ñoom ñoo koy defar ndax euh, bi ñu ñëwee waxtaan nañu ak noonu jàppale ñu ci xale yi ci xëyum xale yi parce que li ñu recruter lépp li ci ëpp euh, mat na soixante quinze pour cent waaye fii lañ ko jëlee ci commune bu Taïba Ndiaye loolu nag mooy lu am solo am na ñoo xamee ni sax pour respecter un peu le genre jigéen ñi dañ leen a jël sax pour jàngale laan métier lu mel ni ferraillage ak euh, leneen euh, boo xoolee ñu ngi takk commencé dimante boo léegi daañu mën a utiliser métier mi feneen boo xoolee li wër fii yëpp daanaka ay toolu mbay la mango jàng fii ñampi jàng fii maraîchage bi également ñoo ngi ko fiy def bu baax a baax donc dina yombal bu baax euh, li nga xam ni mooy jóge ci àll bi ñu war ko transférer mu dem ci marché yi wala ci dëkk yu mag yi ñu ngi am te loolu di dalal tey euh, délégation bi fi ñëw euh, projet bi projet bu am solo la ci réew mi euh, notamment ci fi ñu nekk ci tey ba Ndiaye parce que booy xool doléance bu yàgg la boo xam ne ni population bi doon nañ ko sàkku ci président de la république actuellement ñu ngi ci liggéey bi comme ni ngeen ko constaté donc ñu ngi ci partie bi ñuy wax terrassement mooy partie bu important buy permettre projet bu évoluer ba dem ci finition bi ñu ko soxla donc euh, ouvrage hydraulique yi aussi li ci am solo la bu ngeen constaté yëpp démarré nañ leen ba mu des benn foofu noonu peut-être disposition yi ñuy xaar mooy pour jéem a xool yeneen yoon pour mun fa jaalale camions yeeg oto yi pour mun a démarrer travaux yi sans pour ñu mën a impacter population ba fa nekk donc euh, engagement yi sino hydro jël moom mi nga xam ne moom lañ jébbal liggéey bi mooy d'ici ñeenti weer incha allah tous les travaux maanaam liggéey bi yëpp ñu mun ko terminer ci ak ñeenti weer. bu ko defee ñu mën a respecter wax dëgg yàlla euh, engagement yi ñu def euh, ci diggante ñun ak ñi nga xam ne ñoom la ñu seqal projet mais aussi ñun ak ñi nga xam ne ñooy représentant di ndaw gouvernement bi. Hmm. waaw ñu ngi leen di dalal bu dalal seen xel bu baax ci aspect boobu parce que booy xool projet bi euh, booy xool presque avancement bi ñu am ni li ci ëpp. Euh, amul benn euh, jeexital ci kër yi ko jege waaye booy xool euh, juste dëkk bu ñuy wax Taïba Ndiaye boo fay dugg foofu ca la am ay kër yoo xam ne dañoo déborder dugg ci biir xàll bi ñu def pour def fa tali bi donc loolu du doon problème bu rëy waaye entreprise bi vraiment dina jël disposition yëpp ak Ageroute ak également les autres maîtres d'ouvrage pour ñu mën a def liggéey bi sans pour autant ñu yàqal leen wala ñu def ay dommages yoo xam ne mën na sonal euh, ñu dëkkee ci ci ci côté tali bi incha allah. réaction bu ñu ci am rek mooy réaction mbégte ak réaction soulagement. parce que tali bi biñ ko dalee wax ak léegi ay at yu bare bare bare bari la donc euh, tey gis nañu ni wax dañ daan wax tey moom concrétiser wu na parce que ñoo ngi defar tali te entrepreneur bi wax na ni déjà téeméer boo jël ci li ñu fa waroon liggéey ñeent fukki def nañ ko déjà. donc ça veut dire que mi ngi avancé bu baax a baax a baax a baax fii nga xam ne fii la ñu taxaw muy radier bu gën a mag ci projet bi gis ngeen ni presque yaakaar naa fii ak euh, une semaine au plus tard mën na pare donc ça veut dire nit ñaa ngi def liggéey bi di ko def def bu baax ñu am ci kontaan loolu nag parce que aussi dañu seetlu ni euh, entreprise bi dafa mobiliser ay moyens yu am solo pour liggéey bi baax loolu la ñuy la ñuy laaj parce que souvent am na tali yoo xam ne bu ko defaree du yàgg et quelquefois ci qualité liggéey bi lay doon te yaakaar naa ni loolu jël na ci ay bien sûr parce que boo xoolee bu nit daan jógee Dakar war a jël route de yenn saa yi ñoo xam dañuy bëgg a jaare ji Lompoul dañu doon obligé jaari ba Mboro wiiri jaari Daaru si ñuy bëgg a dem Tivaouane doog a jël la route de Niayes mais tey jii tali bu baaxee nit ki dootul jaarati Mboro bu ñu ñëwee ba Baal Diop day jàdd il fait onze kilomètres et puis la route nationale pour dem Tivaouane donc tali la boo xam ne daal tali bu am solo la sur le plan économique ci département de Tivaouane bi nga xam ne fii la ñu nekk. mu nekk aussi tali boo xam ne dina aidé ku xam Taïba Ndiaye xam ne mangoo ak mbay mi bari na fi mais tali bu amulee aussi donc nit ki mën na bay ba pare li mu bayoon yàqu parce que du ko mën a génne donc nekk na tali boo xam ne daal bu am solo la et puis euh, ñoo ngi ñaan yàlla rek mu yàggale liggéey bi ñun ñëpp ñu fekk ko population yëpp mën ci jariñu